Courant eh Events, le numéro 1 de l'événementiel, modèle soit au devant de la scène un gala méga de lutte. Balla Gaye 2, le de Guédiawaye, mooy jàkkaarloo ak Tapha le géant du Baol, un choc de gladiateurs pour la couronne de l'empereur. Drapeau Pape Ibrahima Diagne Bassirou. Grand Serigne de Dakar Al Bourakh Events fas yéene boucler la saison dans l'apothéose ak ay ngandi grand combat ci benn takkusaan soq ak Mama Lamine Bende war a ak Zambla Bébé Saloum war a jàmmarloo ak Jacob Balde Malaw Seras mooy dajak Ndandi Fall ordinateur war a jëflante ak Ndul général Bumbu war a daje ak Boy Malika Kirikou waxti daje ak Ardo Viengolo jërëjëf mbok yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaar <clears throat> fu waay nekk rek si réew mi ak si bitim réew tey suivre Gaston production mbokk yi combat bi jeex na Balla Gaye numéro 2 ak ki nga xam ne mooy Amdi Moustapha combat bi jeex na nag la xewoon 2013 moo xewaat 2024 muy loo xamante bi nii am na ñu mu bet waaye am na ñu mu bettut muy làmb ju neex ñuy félicité waat Abdou Aziz Alé Ndiaye di félicité waat Baye Ndiaye njiital Albourakh Events Baye Ndiaye moom làmb man Modou Anta de kontaan naa ci moom. parce que dafa am lu ñu waxante woon suñu émission bi accréditation yi samedi la ma ko jox wax dëgg yàlla wàccoog man te liggéeykat loolu rek la bëgg donte nag liggéey nañ ci journée bi te loolu laa doon kaas kon am naa ko comme bu ma ko amee dama koy santaat bu baax. Galso 94 tey moom xam naa ne kontaan ngaa kontaan lambaloog kooku mësuma gis ku ko gën a bëgg Balla Gaye Galso 94 mi ngi si Touba hmm? Fallou Fall Touba di jaay ay yére yu rafet a rafet loo bëgg ensemble jean Lacoste loo bëgg demal marché Ocass nga laajte Galso 94 Aliou borom daan Couture sa mbër mi moo daan félicitation di nuy waa diaspora bi yëpp alam daar États-Unis ñu ngi leen di siyaar def live maa ngi leen di béggee bu baax a baax lës lamb Babacar borom marché Petersen maa ngi koy siyaar baax xale suñu waa ji lës doom nday Sëñ Saalu Ndiir doom nday Sëñ Fallou Seck borom tamit séeri Touba Xayra maa la siyaar waaw Modou Anta waaw waaw waaw salaamaaleykum salaamaaleykum monde entier waaw di nuyu ñëpp di masawu ñëpp di ñaanal ñëpp ñu ñibbi si jàmm ak si jàmm delloo seen xel si yàlla xam ne combat kese la làmb rek la woon bu jeexee jeex na mais nag du tee mu neex tey tey tey tey tey làmb woneeti na boppam saaga jëm na fuñ ko foogewul waa ji damaa ñëw RTS mu laaj ma mën na ko comme premier combat yi ba Malaw Seras góorgóorlu lu sori a war a xam ne tey kuy tokaar da yaa gañe Jacob Baldé tey jii moo doon tokaar ci kanamu kee moo gañe tey tokaar yee gañe moo tax làmb yëngu fogor yee perte moo tax ñu bëri xeeb nañ leen tey newoon naa la Tapha Tine bu ñu ko daanee dootuñu ko xàmmee waaye après loolu dañ siy dellu waaw di gën a gërëm waa diaspora bi ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp Sénégal njaay ñëpp képp kuy bëggee làmbaloog rek ñaanaa la sàkkuma ñaan nga ñaanal ma ci ñaan rek laa toll di gërëm waa géejawaay gépp gépp gépp gépp ak képp kuy bëggee làmbaloog di géejawaay waa Bawol gépp di leen ma sow saw na xam ne di sport kese la yàgg naa leen wax Tapha daa war a jàpp rocc benn loxo bi kon loolu qualité yoo xamante ni la lu ma la dénkoon mais tey daanaka lu ma la waxoon moom la gaa yu bëre waxoon nga ma ndax yaakaaroo si dem ardo man a la de bañ dem ardo ba pare bañ a dellu si sax man na see am far yàlla ñu dem ardo dellusiwaat waaye delluwaat nañ ardo tey newoon nga ma buñ bagaaree man na la bagaaru Tapha Tine daa yeex tey bagaar bi yeex bi feeñ na wala feeñu mais après lépp dañ ciy débat parce que fii la morom bi xoyom xoyomee nag bi mu ba dëgër man maay génn di jox samay fans vidéo tey baala maa wàccoon ci terrain bi Balla moo tax ñëpp xam ma tey la woon passement ma client yi te Balla bi ma commandé sax bu bees ba dama leen noon Balla bu xees baaxut baala bu ñuul a baax résultat yaa ngi tey fan su Balla gay xamul defet moo tax saa yu amee defet jaaxle moo tax Balla daa war a góorgóorlu ba dee. même buy tekki ngembam mu góorgóorlu ba te keroog mu tekki ngembam parce que ay ñoom làmb la ko nekk si ginnaaw a gën a nekk dansé amuñu jot sax ñàkk si ba diaspora bi mais bëre bala Gaye jaral na leen di dox rek di dem ba keroog ñu dégg yuuxu ñu tourné di ko nuyoo ñëpp di leen ne tey tey du yomb. tey du yomb mais làmb fi ñuy dooree waxtaan bi bala ñoo ñëw ci xeex beeg ardo beeg yooyu yëpp man de demaa part personnel parce que nag du mën a fekk wax dëgg yàlla combat bi nii mu amee bala gay xeex ak Tapha Tine yóbbu ko ardo ñëwaat daan ko wax dëgg yàlla man Modou Anta bett na ma parce que bu ma waxul ne bett na ma damay nekk naa fekk parce que ya xalaata Balla Gaye mën na daan tafaatin mais le fait que mu duma ko yóbbu ko àdd moom wax dëgg yàlla bett ma xaw ma yow bett na laam déet. non man man man man man man man mënuma bett. ah parce que li tax mënuma bett mooy xame naa tafaatin xam naa ay xeexam xam naa tànk yi Balla Gaye mu ne tey xoola Balla bi tànk bi mu dugal du fooram sax mais xeex ak tafaatin la bëgg moo tax mu dugal boobu saa yoo tegee bi bu ko arrangé lay dugal. bu bonee tóor gos da koy tóor bu tóoree gos day tal bu bu koree day am parce que tànk bi mu la tegal la mais tafaatin si boppam laa la waxoon de bu buy lewtoo côté ba la war a jaar mais xoolal fu mu jaar si tafaatin kaadaral ko la def dox si koom wàcc mais loolu du bëre bi bi nii nga koy demee latéral wëpp ëpp bu bàllay teg rek nga ko koy saaj mais nag course la manqué ak géew biir géew ne woon naa la du combat tafaatin du komba Balla Gaye combat final laa la waxoon ku gën a ëpp xaalis gañe ko ku si yaakaar sa poos nay sa poos da ngay ñàkk tey poos yi feeñ na. Mm. waaw. poos yi na ci biir tey damaa nekkoon ak benn waay drapeau chef de bi Gaston di tëgg mba fële fu ñu ko tëggee woon du Mbour. am na fu ñu tëggee sunu final bi sunu beneen bëre bi bi du Sané doon bëree ak. Njaga Doole Kaolack ma toog ak benn waay hôtel mu nekk bool bool mu ne ma sama digganteeg Balla Gaye ku taxaw sama digganteeg Balla Gaye ma écran ko écran Balla Gaye ne ko ba mu koy daan bu njëkk foo ne woon mais bis buñ sa demee tey dañoo jàkkaarloo fii mu xool ma ba si yàgg takk bopp bi billaahi déggal loolu wa pop pop pop tey wa pop pop pop ne ñëpp ñaan rek gis nga ko tey ma ma jàkkaarloog moom mu may xool bëtu ceddo kenn waaw ki ma waxoon loolu rek mënoon naa tudd turam fii mais amul essence parce que loolu làmb rek dañ doon xuuxalante rek mais dama koy jàngal àdduna rek parce que yàlla moo moom lépp yàlla moo am lépp man booy laa si kanamam mais waruma mën a xuuxalee xaalis boobu ba ne ma ko taxaw sama digganteeg Balla Gaye ma écran la écran Balla Gaye pourtant mënoon naa ko tontu lu ñaaw mais du ko tontu parce que dama koy jox parce que man xam naa ko bu baax moom xam na li koy wax bu baax mais man Balla Gaye musuma jox añ musuma jox reer man maa amoon sama fierté am sama bëgg di ko topp man bi may ñëw ñëpp laa yemale mënoon naa wax ci bala Gaye rek di bañ a wax si ñeneen di leen classé man defuma loolu man damaa ñëw yemale Tapha Tine jàpp jox ko cër bi ma ko war a jox jox Balla Gaye cër bi ma ko war a jox Balla Gaye bu ma koy xas man li may yàq Balla Gaye du ma ko yàq benn bër mais man ni may farale bu ko ñëpp farale woon Sénégal day gën a avancé rek mais na si bàyyi xel xam ne saaga yàkkamtee xeex la waaye tey ji ana ñu doxoon sa diggante ak Balla ak loo am yow waa koo daal pom du neew salade du ñax biscuit du dem si soos loolu yàgg naa leen ko wax mburu ñaar rek lay bañ poson ak asi bala ñàkk a entraîner rek lay bañ ak ñàkk dem contact mais bis bu si paree bu ngeen ñëwee arène nationale ñu corriger leen final dañ koy mën mais bawol bawol yi ba léegi dese nañoo mën final. ok kooku mooy làmbaloog maam góor góor yombul tisi taalibe sëñ Babacar bi maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar noon la ñuy nuyoo Serigne Saliou Ndir mais làmbaloog ñoom ñaari mbër yi diiran bi ñu bëre bëre bi amul dara lu la ci bett ñu ne runkum daje balla rocci kor xeex ak moom nangam nangam tey bala Gaye ni mu bëree lan nga ci gis. Tapha buy dem si Balla Gaye du daa du du daa war a dem dem day dem noonu rek loolooy problème am. day dem rek. tribune bee koy sonal rek mu dem Tapha Tine gay Gaye warul mën a ñëw di song si te koru ko épercule si yoon wi. bloqué ko parce que tànk yi muy yi mu root lan la koy jariñ. Hmm. tànk yi Tapha Tine Balla Gaye waru see mën a dal taxaw lu tax Balla bàyyi ko mu dugg si biir mu ràcc ràccaat bàyyi ko mu jàpp ñaari ngeem mu kor ko di dóor doo tël baraa bi. kor bi fi mu ko dugal fii ngay téye tël ko mu romb nga takk si faar gi parce que loolu am na fa parce que dalaa kor xoola kor kor nii la léegi fii fii fii boo ko tëlee day laaleeku du ko doole waale nga lang si faar gi jàpp xëcc mu dugg wop wop wop da buddi ba biir bi weex mu dóor loolu tafaatin mën na ko mais tey du ko def xam nga lu tax du ko def tànk bi ko baala ngay tegal mooy sene parce que li mu mën a liggéeyee côté bii la ko mën a liggéeyee mais côté bii lañ la bëri bi ne ok mais làmbaloog réaction zéro Tapha xeexul barewul daanu lan nga ko teg rapidité bala gay mystiquement lan nga ko teg lu war a am ñetti question yooyu ban nga ko ci teg. gën mën làmb la loolu làmb la si biir làmb la bokk. gën mën làmb gën a mën làmb ne woon naa la du làmb Tapha Tine du làmb bala gay làmb final la ku munul final doo ko gagné da gis équipe boo xamante ni kal goal différence la génne day jël coupe boo dof-dof loo tey bi affaire yi tàkkee képp doon wax Balla tey mu dee. tey mu dee du rey sénégalais bàyyi leen xel ba ñuy dem France France dañ ne woon ak ñun ay ngeto lañ bañ fa fekkee France dañ koo defal bu ne cur tey nga dee reyul sénégalais tey bu ñu ne tey mu dee tey bu ñëwee fii day rey jàll mais nañu ñëpp bàyyi xel loolu parce que ne naa la nit ku ne Balla Gaye daa mën 2-0 leer na wala leeru leer na wala leeru Balla Gaye woon naa la bu la daanee kii daan ci koo xamante ni kenn mus koo nangoo laal te fu mu fekk Tapha Tine ko mais Balla Gaye mi daanoon Tapha Tine 2013 année yu dox Tapha defaat fi ay performance yu lourd macha allah ñi fi tëj ñëpp mu daanaa leen daan fi Boy Niang daan fi Yékini Junior daan fi Bombardier daan fi Eumeu Sène daan fi ñooñu ñëpp tey Balla Gaye 2 mi jóge ci contre performance digganteem ak Boy Niang numéro 2 Balla gay 2 moom moo ñëw xeexaat ak tafaatin Tine ko jàppaat ko daan ko. Balla Gaye lan la xam ci Tapha Tine lu mbër yi xamul ci Tapha Tine parce que fi mbër yi mënta jaar génn fa. tafaatin di leen daan Balla Gaye foofu lay jaar génn fa. Balla Balla Balla mën na ko ëpp staff mën na ko ëpp ginnaaw. te ginnaaw ëpp staff non ginnaaw da see feeñ Balla ka ëpp ginnaaw. ginnaaw da dafa bokk ci tafaatin tafaatin lépp am complet ne ginnaaw gee des boo ko waxee duñ ko gëm xoola ginnaaw gi ñëwaguñu mbuur la ma commencé déclarer guerre te mënoon na maa bàyyi ba ñu suba la mu déclarer ma geer ma am problème fu ma dugg am déet mm. mais guerre kat nga koy déclarer long temps mm. yow doo guerre man booba laa ko bañ a tontu xam ne kii du ki nitu làmb kii nitu xol lay waxee mais nag xam-xam du doy xam-xam xale da koy for mag da koy for tey ba may wàcc ci terrain bi di jël baala Gaye ñu bëri ñu wuñ ko wax ñu bëri nangu wuñ ma woon ñu bëri nangu luñ ma woon su liggéey nag bu amul coono doo si gañe mais man làmb ku ma xam-xam ne làmb ji dama si xam lu may waxtaane parce que ñaare lu ma la si costal boo demee ba bëgg maa rey di nga nuy làmb waxoon na ko tey boo génnee TikTok yi di nga dégg làmbaloog ba naaw mais dara jëy sëñ Muntaxa laa la wax de na ma ñëpp ñaanal ma am oto bu ma màggalee mun Muntaxa man maa ko soxla parce que dama sonn si Balla daa réew ak Balla doo la daan ak damay romb si koñ sax ñu ne ma tey nga dee de man lay waxal mais man Balla jokkuma si avance bi lekkaaluma si avance mais am naa droit di supporter wax atte te yàlla tax. am na solo tey nan ngay décortiquer combat bi ginnaaw xeex bi wax nga ci xeex bi ba pare bala Gaye façon bi mu bëreeg Tapha Tine ba daan ko nan la nan nga koy décortiquer. lépp si xam la. bala saa yu tafaatin jàppee ñaari ngemb day bàyyi ñaari ngemb dugal loxo bi kor ko am ko intérêt sànq dañuy rapporter benn lamb lambu euh, soq Mama Lamine ma la nee mu def ne bu ko defoon Balla Gaye day rocc lépp kor ko bu yàqee carte mémoire bi dootul bëri si Mama Lamine laa la ko waxe bëri ba ñëw si loolu def na ko wala defu ko xoolal mbër ak fas ak jeega yam ku leen judd lu a xam fu ñuy bañee bu ma leen koy wax boobu lii xewul am deet sama amateur yi sama sama fans yàgg nañoo dégg mbër ak fas ak jeega yam ku leen judd lu mën a xam lu fi bañe nag bi ñu ko yàqee bi ma wàccee si terrain bi ku xam ne ne nag maa judd lu Balla Gaye bu ko nungul ba heure bi dootu ko nangu mëguma xoolal mën nañ ma boole ku ne géejawaay mais bokkuma ak ñoom parce que man ni may seetaane dama si njëkkee yar ba pare njëkk si ngëm yàlla ba pare jàppe ko sport kese moo tax lu ma la si wax du deñ ok Tapha Tine ñëwal ma ci xeet bi ko Balla gay 2 daane waaw si laa nekk nii si laa lay tojal nii nee naa la da kaa kor si kaw gën kaa gaaw xeex gën kaa gaaw xeex ba pare gën kaa diis yi loxo. après def ko ba pare caxabal ko sa biir sa profondeur ba weñ ko. da koo caxabal dàq ko. xoolal caxabal bi tafaatin lu tuuti cinq minutes mu deñ mais fu ko bàlla dotto sori nga xam ne kii bëre kat la parce que bu ko si kaw tafaatin day baraake rek tuur ko. waaw parce que biñ naanee meew arrangé na tafaatin parce que ñoom ñaar ñëppay naani meew mais fa bàlla sa kaw dënn ba lay daw Balla sa kaw dënn ba la daw parce que jël bi yow yaa njëkk si suuf moom mu war a ñëw. ok Balla Gaye 2 daan na tafaatin lan ngay wax tafaatin am na yenn bawol bawol yu jot a wax fii ci am na ñu jot a saalit parce que du ma ne bawol bawol parce que lama waxoon rek laay wax am na bawol bawol yuy faral Balla Gaye am na ñu dëkk waay ñu faral tafaatin waaw waxoon na leen ko avant mais dama ne. ñi nekk fii nag naan dañ leen a saraxeeg dañ a jekku misig ak dañoo takk loxo yeeg tafaatin na dem bayeeg lool nan ko ko déggee ak looy wax tafaatin am na ñu naa mën na ruuji ruuj ponkal mi bu yooyu ruuj xanaa ko ko romb si tool boo ko waroon wax benn jaajëf ñaata jaajëf nga koy wax bu la nee tourneel xanaa da ngay tourné tool nga jëm yow doo àgg Taphatine nag jàmbaar la démérité wul ah li mu jot a encaissé si première corde bi bu du woon borom jom kawaaw na bu yàgg xoolal li mu jot bu du woon bu ñëwaat te bi mu ñëwaatee moo attaqué mais nag tafaa mënul mën ginnaawam mën kanamam kanamam rek la mën a mën mais ginnaawam gars yi la nee naa la tey estaafa ko daan mais du Tapha ndax Tapha ni mu doon joxe énergie ak ni mu doon gaawee sax bi mu duggee si géew bi dexatul. ok am na solo léegi Tapha Tine Balla Gaye 2 daan na ko fan la Balla Gaye 2 jëm ci làmb kon la war a bëre. loolu waxoon naa leen ko. ah, ah demi final la. demi demi la ñu doon bëre. demi final daan fooy jëm. waaye final bi kenn ko yor. Balla Gaye Eumeu Sène. non final waaye yow pom day new yow ñu romb Eumeu Sène. ah Eumeu Sène moo tafaati na ko daan. Ah. mais Eumeu Sène bul fàtte moo la daan ñaari yoon. naa ma xamet Balla Gaye victoire bi mu amul xoolatul ñooñu loo foo ne. mais ay mu daan lii lépp waxoon naa leen ko ne leen bu ko daanee leen ba bu leen ma fi waxaat ci ginnaaw. parce que xooñ bi fi kenn bëggul la laal. nee naa la ñaata unité la dugg. làmbalog attends ñaata unité nga wax mais dama ne la. Uh-huh. Eumeu Sène moo la daan. 8 juin 2000 euh, déedéet attention moo la daan 2009 euh, 8 février 2009 daana la 5 avril 2015 barki Dembo Ndiaye 5 mai moo daan sa rakk fii. miin sa kër lool. xoolal Eumeu Sène ana ba laa raw Eumeu ma def Tapha Tine ñoom ñi daan Balla Gaye yëpp dinañ bëre ba jeex te duñ ko def Tapha Tine xoolal ni ma Eumeu Sène def beneen mbër du ko gaaw a def Balla Gaye ni ma Balla ni ma ni ma Boy Niang daane si xam-xam mbër mosu koo daane Balla Gaye si xam-xam. parce que placage ba lu ba mu jeexee la ko Boy Niang remplace taf ko yéeg ko si kaw mu jaaxaan xam-xam pire la ko booy Niang daane te baane Ousmane Diop xam-xam la daane top 5 am bii ma estati tey lu bëri ay xam-xam la leen daane mais ba mu àggee si Boy Niang Boy Niang daane na ko noo xamante ni Balla Gaye mosu nee daanoo. ok léegi nga ne fan la jëm. Balla Gaye loo. Eh. waaw pom du neew. Eh. xoolal pom du neew. Balla Gaye. Balla mais mot loo ñooy bëre. 25 Balla mën naa mën naa Sine Mbaye ba ji tëj na. mën naa aju waaw làmb ji tëj na. tey tey Modou Lo nee dootul tàngal ceeb de. xoolal du tàngal ceeb lii tëj kaala jeex la Modou bu da bu rajaxee Siteu daan na si ba mag ñi lu kenn daanu bu jëlaatee Balla Gaye mën na kaa daan de loo defee. est dina daan Siteu bonne question. waaw kay Modou mën naa daan Balla Gaye di. bala gay Balla bu ko Modou Lo bu ñu daanee Modou pour Siteu ñoo koy accueillir. léegi xaw ma luy xew léegi bu Siteu daanee Modou Lo nag. est-ce que ne ma Modou Lo est-ce que buñ ko daanee ma ne la moog Siteu kon kooku jëru sax wax taxaw na borom bitigu mbagg boo xotti dënn ba magasin nga fay fekk. Modou Lo xoolal Siteu jox nañ ko Modou Lo mais ah Balla la gën a sawar. Siteu. Siteu Balla la gën a sawar bëri. Modou Lo ñàkk pexe ko ko may mais bala Gaye la gën a soxla kon Siteu bu jëlee roi des arènes bi moog Balla Gaye kon mérito nañ ko. kon ku jël roi des arènes. yaa empereur yéenay bëri. bi la ñuy boole teg. ku daan buub yëpp yóbbu. loolu la la yooyu yooyu yooyu médaille. xoolal bu roi des arènes yooyu garaat. bu roi des bi ñëwee. bii Aziz Ndiol. moom la ñuy jël ak ak ak ak. paiement feedi moo. ko daan boole ñaar yëpp yóbbu. empereur roi des arènes. ñëpp koy bëgg. weer dee bi la Aziz Ndiaye fay ak bi la roi des bi di fay léegi ki jël roi des arènes roi des dina am importance ñaari couronne nga yor sa coach nga jox ko benn mbaxana yor benn mbaxana lamb ji dama koy changé comme ni ma changé mbëri ba kenn dootu fi sumeeku nga ne entraîné wul noonu la ñuy changé trophée yi ba trophée yi di am ñam. kan mooy empereur. mooy mooy mooy mooy mbax na. dama kan mooy empereur ci mbëri. non ki empereur bi ñëw na. kan la ah waay yow bàyyi bàyyi ma waay pom du new nag am na yoo xam bu ma ko waxee Modou Anta yow. kan mooy empereur. empereur moo siy kan. mooy lan mooy ba pare ma doog koo toj. empereur la Aziz Ndiaye teg ci combat bi dama laa kaal. moo ko moom. dama ne kama ne kan mooy empereur pour l'instant. Balla Gaye. kan matu léegi bu ñu bëree ñoom ñaar ampleur bi la ñuy teg ak roi des arènes bi nga daan ampleur bi bala Modou Lo kon bu daanoon tey moo yor bi ba pare jox Satou Ba kii bi bu bu Aziz bi waaw ñu bokk toog loolu neexul bu la neexee jox sa soxna benn bi jël benn bi loolu neexul non xoolal ampleur bu la neexee man làmbaloog mi si doon topp nga dem am yóbbul sa néeg ma teg ko sama néeg loolu neexul te du tee da ngay téye roi des arènes Aziz Ndiaye dañu doon jàngal waaye ñun bool boole nañ ko nax di boole par roi des arènes beeg ku daan roi des yóbbu ko kantaan naa ci yow la. mais ñaari buur duñ bokk dëkk te ñaari chef duñ bokk dëkk waaw waaw. ah, ah non déggal sama mbokku Mbaye Fall bi. jaaykat bi jaaykat bi noonu. attends jaaykat bi noonu nee na mille francs la dagg te ci café Touba lay jaay wax dëgg yàlla loolu tamit xaw xaw naa doy wax mais nag café Touba ñuy ñoom war nañuy mën a dagg 2000 wala 3000. fukki dërëm ba 6000 ñaata kaas la kooku boo ko rangale woon dem na jam ñaajo waa ñu yërëmuñ café Touba yi nag. déggal sagal billaay wallaay déggal te kii jaay jaayante la moom xool bu mu tàngee lay yenu affaire yi mu tàng jër gars yi dañu si gën a bàyyi xel parce que ba Ndiaye li mu def leeru ko ko xaj xañ na da koo fekkoon fii rek waaw waaw lamb kontaan naa ci yow temps bi xooj nañu bi ñëw ñëwal ñëwal nii ñawal nii ñëwal nii rek yow danga bokk si kii daa bokk si yi alu café non cal rek li nga bëgg a wax kenn ku nekk am na droit wax ay wax fii nii comme nii di wax nii ay aalu parce que yëfi jàmbur doo ñëw di ko forcé man man sit bu ne ñaan naa si sit bu ne ñaan naa si Mour Anta barke sëñ Fallou Mbacke man sama man man dama dem man ndaw laa jóge ba Louga ju yaroo fii Pikine su ma neexoon dem defi leneen entraîné comme sama morom di dem lépp naka sudul noonu mais jomm naa loolu man doomi ñooñu la am fu ma bokk bañkat la lu ma am lu lu ma am damay dem jaayante jox ci sama waajur sama papa ak sama yaay mag ci may ci samay raq ak samay mag mais bu ñu ñëwee baay ñun kan mooy jënd ticket toog ci suuf koy jaay moo rànd ci kaw tribune la nekk di seetaan lamb boo ko fekkee foofu bu bëggee café ñëw jaay nga jaay ko loolu la mais ñëw ñu jaaykat yi sunu moroom yaay ak suñu sœur yi suñu morom góor yàlla yi ñuy dagaloo 6000 francs 6000 copain ñibbi laa doon def ñibbi laa doon def ñibbi bu feesee bu jëlee lépp ñaata la. bu feesee dell ah, quinze 15000 lay génnee 15000 francs di nga ci di nga ci defaat waaw. fooy suukaree. te café gi léegi kilo bi 4000 la café gi léegi aju la def 4500. man bu ma feebaree boo ma fëggee seggukaay café ma tane. non moo moo moo man agent ma dama kaas bu sonn bis ni ki tey nag bis ni ki tey nii bis ki tey bis kaas bu 100 francs day fees day rembet waaw non bee bi ñu jaayante ñu mel ni ah jaaykat bi joxal 2000 ah, nga joxe ko ñu bàyyi la nga dugg ah, démb fii dama fay ñëw maa ngi wax ak ni ma non ma échange wax dëgg yàlla du la fen tëgguma làmb ci sama rax ka tëgg bàyyi jàpp ma génn dem ñibbi parce que fi ma ñibbi dafa sori moo tax ma génn dem ñibbi mais nañu dimbali nga jëm sëñ Tuubaa nañu dimbali mais grand rendez-vous moom bu amatee damay toog sama kër jàpp sama bopp dootuma jaayati waaw continuer la continuer Ah, xaalal ma yow bu jeexul. léegi yow da ngay ñëw ba si stade bi. Mhm. léegi imagine tey jaaykat bi nga doon ñëw si stade bi. xalil. aji mhm. léegi imagine tey yow nga dagg sa bii bu seer ñëw toog si côté bi bëgg am ndox. dëgg la dëgg la làmb jëlal làmb jëlal dëgg la non non non jëlal fii 1000 francs jox ma 1000 francs làmb loog looy tàggoo temps bi xoj nañu waaw di ziar ñëpp di wu ñëpp di leen xamal ne làmbaloog daal kontaan na tey mi ngi gàllem waaw nañ ñëpp ñaanalante rek te yokkuma ñaani te xamante ne nag mu di yi sëñ waaw di gërëm sëñ Saalu Ndiir sëñ sëñ Saalu Ndiir du ma ko fàtte parce que sama waay la yàlla moo ma ko bëggloo waaw di gërëm borom géej gi bu baax di gërëm góor gi si ruq bi namm naa la xaw ma ñibbi ma xaw ma ñibbi mais temps yi nag borom géej jàng fi mais nag daal nëbbutu dugg si ruqam waaw di gërëm ñëpp képp ku ma faat ak ki ma indi woon ale ak retour moom xam na boppam day bañ mu tudd ko ins bi mais li ma mën a xamal mooy képp kuy fan sa Balla Gaye rek lamb taalal na la loxo di la ñaanal képp ku mën a autorité ku ma jàppale rek te yàlla tax sëñ Tuubaa laa bëgg dem màggalu ren gi ma yoobu oto jot na. jot na kon jàppale leen ko mu am oto di leen jox di daje ba beneen yoon ci Gaston Production jërëjëf.